contentement di ànd ak yéen ci Tel Info People alors tey nag dañuy ñëw spécialement wax ci ki nga xamante ne nii moo di Moustapha Naam ak koppinam ex koppinam bi di Séraphine d'après benn membre de sa famille li mu ñu wax euh, moom lañ ñëw indil leen ko tegal leen ko fii ci table bi il se dit partout sur les réseaux sociaux et autres euh, supports c'est parce que Séraphine n'est pas musulmane que Moustapha Nam l'a laissé tomber d'après loolu nag loolu noonu amul ndaxte kii di Naam bàyyiwul xale bu jigéen bi parce que ñoom ñaar bokkuñu religion non noonu non daf ko bàyyi parce que dafa gis keneen koo xamante ne nii moom la gën a bëgg teg ci kooku célébrité la selon notre informateur membre de la famille du joueur Moustapha Nam a fait preuve d'une trahison inouïe d'une fille qui l'a attendu qui a rêvé avec lui qui a cuisiné pour sa maman balayé pour elle et même lavé le linge pour celle qui devait être aujourd'hui sa belle-mère xale bu jigéen bi nag def na sacrifice yooyu noonu yépp pour ki nga xamante ne nii moo di Moustapha Naam ndax lan dafa doon rêvé ni ñoom ñaar seen àdduna duñu mës a bàyyante li des ci seen vie ñoom ñaar ñoo koy passé ensemble Euh, notre internaute qui a préféré garder le silence nous renseigne même que beaucoup des membres de la famille du joueur sont très remontés contre la star du ballon rond. Nous avons honte pour tout ce que Séraphine a enduré pour Moustapha Nam, mais aussi pour la famille de la fille qui avait vue à ce projet de mariage maanaam famille xale bu jigéen boobu lee dañoo amoon confiance ci li nga xamante ne ni moo di relation boobu ñoom sax jàppoon nañ ni desul lu dul ñu dem def li nga xamante ni nii moo di farata famille Moustapha Naam nag affaire bi métti na leen ba ci kanamu yàlla pour ñii di wax naan Moustapha Naam et sa famille ont trahi Séraphine nañu xam ne loolu noon yëpp dara nekku ci famille bi ñoo njëkk a am lu leen metti ci loolu nga xamante ne nii moom la Moustapha Naam def bàyyi Séraphine dem takk célébrité bi nga xamante ni moo di Virginie mu nekk acte bu xamante ne ni bu ñaaw la il a pas trahi parce qu'elle est d'une autre religion mais parce qu'il a eu la volonté et honte de la trahir à cause d'une autre fille il s'est laissé emporter par sa célébrité par la célébrité de l'autre fille et rien d'autre mais il risque de le regretter si le karma se retrouve se retourne contre lui kii di wax lii nag du keneen ku dul ki nga xamante ne nii mooy membre famille Moustapha Naam moo génn avec regret du ñu annoncé wax ji wax yu nii mu yëkkati teg ko ci deru ki nga xamante ne ni moo di Moustapha Naam rien que pour sénégalais yi bàyyi xel ni ñoom affaire bi metti na leen nekkul lu leen neex te tamit gisuñu ci seen bopp ñu bàyyi ci loolu xel. bu ñu jugee ci loolu nag dañuy demaat ci kaaw ki nga xamante ne ni moo di njàpp njàpp nag ginnaaw ba mu ñëwee fële ci soirée Sidi Diop bi defal ko surprise bu mag Sidi Diop daal dinay am mbégte contentement waaye itam. jooy na sax ndaxte dégg na lu nekk nit ñi waxal nañ ko lu nekk ne njàpp dafa daw njàpp dafa lii sii di fayul sii di liiwul sii di laawul fekk na loolu noonu yëpp du dëgg njàpp nag ginnaaw bi mu defee benn sortie kii di Ketchup di ko laaj ne ko njàpp ñun de dégg nañ ni dafa am benn artiste bu mag bu la jox xaalis pour nga bañ a ñëwaat ci Sidy njàpp nag mu ñuy xamal ni loolu yëpp dara amu ci kenn joxu ko dara moom toogam li ko waral foofu ne la sa dëkk européen yi moo di moom dafa feebar ginnaaw ba ñu defee seen tournée ba pare moom njàpp woo na ki nga xamante ne nii moo di Sidi Diop mi mu woowee papam ne ko papa man kat sama yaram bi day metti dama bëgg toog fii quelques jours profiter sama séjour artiste bi donc donte loolu arrangé wu ko mais xool na diggante ak njàpp mu daal di koy defal loolu ñoom nag njàpp nag ginnaaw ba mu toogee foofu quelques jour après ci la dégg ay rumeur comme quoi que moom dafa daw moom dafa lii moom dafa laa il était étonné affaire bi jaaxal ko waaye moom tamit mu ngi xamal ni am na ay kilifa yu mag yoo xamante ne nii woo nañ ko maanaam sax envoyé nañ ko ay vocal di yàq deru ki nga xamante ne ni moo di siidi Diop pour mu bañ a ñëwaat ci Sidi toog lee daan dooleem moom njàpp sax mu ngi xamal ni bu fekkoon artiste bu mag boobu lee daggal na ko billet pour mu ñëw kon moom bu ñëwee cëpp day dem directement ci kooku waaye bi mu ñëwee dafa ñëw ci ki nga xamante ne nii moo di Sidi Diop donc nañ jàpp ne Sidi Diop ak Matar Diop suba teel ñoo ko daggal billet mu mën a ñibbi ñibbisawaat fii ci seen waa kër ak ci ki nga xamante ne nii moo di papam boobu di Sidi moom jàpp sax mu ngi xamal ni kilifa yooyu lee kàddu yi ñu ko wax lépp moo ngi ci téléphone am def na ko ay audio parce que ñoom sur WhatsApp lañu doon waxtaan ak moom. audio yooyu lee moom jàpp bi mu ñëwee daf ko bëggoon génnee waaye ki nga xamante ne nii moo di Sidy Diop ak Matar Diop suba teel ñoo ko ne lool noonu bu mu mës génn parce que yow nit nga te gor nga te nit aussi day suturaal moroomu nitam jàpp nee na kàddu yooyu noonu ñooñu noonu wax ko ko ak ki nga xamante ne nii moo di manager am moo tax mu téye yooyu le ojo waaye audio yooyu nag kilifa yi ko wax bu ñu mës fàtte ni audio yi mu ngi ci téléphone am te à tout moment mën na génn loolu daal li ñu leen indiloon tey jii ci seen info di leen jox dig daje ba beneen incha allah.